salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi aji Sarr daw na Adji Sarr ma nga Suisse wàcc na fa tey ku ne leen Adji Sarr génnul Sénégal day duwul ñii koy weddi naan da génnul senegal dañuy fen aji woo naa ko ne ko yónnee ma sa location nangu ko yónnee ñi ko jege woonan ko ne ko yónneel sa localisation nangu ko yónnee saarata mi ko daan défendre guddeeg bëccëg dafa wéet aji bàyyi na ko fa ñoo ko yëgal ne ko aji saar dem na xamu ko woon lu ko bett aji saar ma nga Suisse ma ngay waaj a dem départ mais aji li gën ci moom instant bi mën nga dund Suisse mën nga dund itali mën nga dund fu la neex ndax gars yi fàtt nan la bàyyi nan la ndax ñi nga xamante si nii ñoom ñooy waa kër Ousmane Sonko ñoom lii rek lañ bëggoon Ousmane Sonko falu wala ku jege Ousmane ñu fàtt la mais Sénégal booba toogoon dina la topp ci cas topp la en justissement parce que li nga def dëgg dafa rëy li nga wax président Ousmane Sonko moo rëy gars yëpp dana leen baal mais yow aji neexoo baal nee na nag maa ko tiital sama live la seetaan nit ñi bëy ñu koy dóor di ko jaxaseeg sénégalais mu daw jëli bagaasam aji dinaa ñëw live ci kanam